daaw maa gagné woon maa gagné waat ren maa jëloon pay maa jëlaat pay di ko sant ak sëñ Bello sama sëriñ ma yaakaar bafu bafu collection bafu collection laa ko tuddee maa leen sant wër man Fallou Ndiaye laa tudd dëkk Jaxaaw Fallou Ndiaye Ndiaye dëkk Jaxaaw maa leen sant wër kontaan rek xanaa am contentement rek génne stress bi bañ a mer xàpp bi ree rek sant yàlla sant sëñ Tuubaa wër wër bëgg naa si waaw damay sant yàlla bu baax di julli ci yent yàlla Muhammad di sant sama yaay bu baax ak sama baay li tax ma ni di sant sama yaay bu baax ak sama baay sama yaay dafa sonn ci man bu baax ku nekk xam na ni man je suis handicapé mu topp ma di ma dimbali musuma yalwaan musuma tàllal kenn loxo ba yàlla may ma ma mën a taxaw tey di organiser lu mel nii dama koy sant bu baax di sant yàlla di ko ñaanal yàlla gudd fan. li nga ma laaj ci course bi nag dafa nekk loo xam ni sama xol dafa sedd ndax ku nekk xam na ni ay jamono ba may organise course bi dafa mel ni benn baas laa daan am su ma amee lu tolloo juróomi junni sax bari na tey yàlla dogal ma yore lu war a mat 60 mbaam. ñu dawal ko yàlla dogal autorité Thiès daawuñu ñëw te yàlla dogal gouverneur da la région ak préfet ak maire Thiès ak président tribunal yi ak maire commune d'arrondissement yi ak député yi nekk yu dëkk bi ak parti politique yëpp parti politique yëpp laa la wax ñëpp ñëw nañu ànd ak man ci course bi ah wax dëgg yàlla loolu ku ne xam na ni yokkute la yemu ci ñu indil ma ay ambassadeur ambassadeur ñaari ambassadeur yu jóge bitim réew ñëw fekke course bi ma am ay touriste yoo xam ni genn ki maire la ca dégg nga maama Italie ñëw toog ànd ak benn staff ñoo toogoon fii boo seenee am na ay toogoon léegi man loolu bu ma ko amee damay sant yàlla kon li ma bëggoon ci course bi maa ngi koy am mooy cosaanu Sénégal lii da daan am ay at da daan am ay jamono yàlla dogal mu dem ba fay amatul ma taxaw ci di ci dox ba yàlla indiwaat ko ma mën a regrouper lépp luy parti politique ma daal di lépp luy xeet bu nekk ci diwaanu tees ndax tey suba carnaval bi ñu def séeréer bambara saraxule pël soose lébu ñoom ñëpp ñëw nañu ñu def carnaval bu rëy waree na Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar image bii nag dama bëgg parti politique yi ñu xool ci image bii amul tey soo xoolee tribune bi amul benn parti politique bu des te nekkuñu ci kaw tribune bi li ma leen di wax li ñuy wan askan wi li ñuy wan askan wi ci xuloo di ko wan askan wi ci xeex saagante di ko wan askan wi ci dóorante te bu ñu wéetee ñoom ñëpp ñu doon benn lu du ñu wéetee doon benn nan ko wan askan wi nan ko wan askan wi Sénégal benn bopp la bu ñu wéetee benn la ñuy doon bu ñu wéetul ku ne wax ne kee laa faral kee laa faral ñun askan wi bu ñu nax bu woote amatee nañu jël suñuy carte dem woote li ñu war a woote dem ñibbi suñuy kër bu ñu kenn tax xeex bu ñu kenn tax a yàq dara ndax ñoom benn lañu ñun ñoo nar a xaajali ko li may ñaan ci course bi nag yàlla may ma may dajale di boole ñëpp am jàmm ñëpp di bég ñëpp di kontaan loolu mooy sama yitte tey xale yi jóge ci àll bi ku leen gis xam ne seen xol sedd na ndax lu toll ni gouverneur toog seen kanam lu toll nii ay ambassadeur ñëw toog seen kanam te indépendance daan na jot ba jeex xale yi duñu xam sax ndax défilé am na wala amul ndax fa ñu nekk amul télé ci rajo yi la ñuy déglu te xale amul jotul déglu rajo booy seet kon nag lii ma ba xale yi tey àndandoo ñoom ñëpp bég ñu ngi ciy sant yàlla di wax yàlla na yokk diwax wax rek suñu presse yàlla leen yàlla fay xeebu leen ñu course bi fépp mu egg presse bii ñoo koy wane ba egg fa mu nekk sit internet yaa ngi fi presse écrite mi ngi fi presse média mi ngi fi presse rajo mi ngi fi presse visuelle mi ngi fi yaakaar naa mooy télé. waa mbaam daa bokk ci cosaanu Sénégal indépendance avant indépendance mbaam a fi amoon mbaam ñoo daan dem ci biir kër yi mbaam ñoo daan bay bañ nañ ko ba ku bay sa tool lu gerte ga bari bari lu dugub ja bari bari danga naan am naa ñaari mbaam am naa ñetti mbaam doo wax am naa fas doo wax am naa giléem danga naan am naa ay mbaam te boobu avant indépendance la suñu demee ba indépendance ñëw fas ñëw oto ñëw ay camion ñëw loolu yëpp ñëw ñu fàtte mbaam te mbaam moo fi jiitu woon loolu erreur la te li ma ci gën a dugal mooy xale yi dëkk ci monde rural bi ci la ñu bokk moo tax ma soisir mbaam ñoom ñoo dëkkoon ak mbaam yi ñoo xam cosaanu mbaam ñoo xam gëdd mbaam ñoom ñoo ñimee war mbaam looloo tax ma jël leen ànd ak ñoom ñëw fii taxawal course mbaam bi mbur ñëpp bëgg